université ngi ñëw Kaolack. Mhm. Euh, euh, euh, Kaolack déjà da ñuy wax yan école nga fa def. éducation yan école. bi ma ñëwee Kaolack Immaculée Conception lañ ma inscrire. Mhm. ma def Immaculée de sixième à la troisième. bi ma amee brevet ci laa soog a dem lycée Gaston Berger à l'époque qui est devenu Valdiodio Ndiaye na donc après ma dem lycée fa laa jàngee seconde première terminale. Mhm. ma am bac bi ma amee bac nag. am boroom kër en même temps ci laa ñëwee nag tuxu si Dakar donc 73 ba léegi maa ngi dëkk dakaar pour ñuy wax naan Dakar war yaa ngi fi doog 73 ba léegi maa ngi dakaar loolu dinañ ci agsi mais bi nga amee bac ci nga am borom kër kon yow bi ngay nekk miis ban âge la woon ah waa Miss bi kay bu nga wax si ah, doo fa neex di Miss bi 70 la woon. Miss bi Miss semaine de la jeunesse la woon. Euh, Miss Sénégal comme ni ñuy def non Miss Sénégal bi j'étais dauphine de Miss Sénégal bi. Mhm. man après boobu année année bi ci topp ci la ñu def Miss Sénégal Coro Thiam gagné ko. Mhm. mais man j'étais Miss semaine de la jeunesse en 1970. après l'année suivante je crois il a eu Miss Sénégal bi ñu yóbbu ñu ñu les Miss des différentes régions lañu jëloon sélectionné leen yóbbu leen pour ñu compétir ak waa Banjul. ci laa nekkee dauphine de Miss Sénégal. boobu ko moo gañe woon. une Gambienne. ñu wax ci Miss parce que mënuñ ko tëb parce que actuellement benn scandale Miss am na fi. est-ce que Missu avant ak léegi benn la ak ban regard nga def ci ci. man daal bi may dem. Mhm. ki ma jël si ñi ma jël si woon équipe bi ma jël si woon Kaolack sama yaay daf ma leen dénk te maa ngi fàttali bi bu ñu demee xale yi ne dañuy génn mu ne non kii du génn kii yaayam man la ko dénk. donc du génn donc fi ñu nekkoon fi ñu logé woon fa lañ nekkoon kenn génnu ci kenn demul baali kenn doxiwul mhm. ñi ñu indi woon daal ñoo ñu encadré concours bi ñu def ko ñu pare ñu dugalaat ñu ci oto ku ci nekk ñu dellu la sa mais man ba ñu nee yow yaa yow yow yaa nekk maire euh, bu Ndakaaru dañ ma ne